bëgg nañu investir mais amuñu xaalis loolu mooy phrase bi ëpp li may dégg ci commentaire yi nga xamante ne moom laay jot parce que à chaque fois su ma mettre en place su ma mettre sur YouTube ay vidéo des fois j'obtiens des retours de la part des proches yoo xamante ne dañ ma naan effectivement Bassine suivre nañ say contenu sur YouTube mais tu sais au Sénégal comment ça se passe tu peux pas épargner xam nga dafa metti euh, y a la famille y a les les amis y a l'entourage yi nga xamante ne tey gi duñ la mën a permettre nga constituer benn épargne bu conséquent pour euh, tey gi mën a financer personnellement tes projets raison pour laquelle ma ne c'est essentiel parce que man ci chaîne bi euh, lu ci ëpp c'est parti ay euh, ci ay expérience yoo xamante ne dama ko dund wala je me mets euh, en rapport avec d'autres personnes yi nga xamante ne dund nañ des situations similaires ñu raconté ma seen vécu et qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à un sujet bien défini pour mu mën a ñëw étaler leen ko donc quand j'ai eu retour boobu noonu de la part de plusieurs personnes qui m'ont interpellé oui Bassine pour financer un projet c'est compliqué on n'a pas de financement euh, te aussi Sénégal pour épargner fi dafa metti euh, raison pour laquelle ma ne ce que je vais faire man je vais dresser benn série de benn playlist boo xamante ne ça va uniquement parler d' épargne te suñu wax épargne duñ ko def comme méthode occidentale mais dañ koy adapté ñun ci suñu contexte sénégalais Euh, suñu contexte contexte africain plus particulièrement contexte sénégalais donc ci seen série de vidéos yi nga xamante ne moo ñëwaat dama leen di dresser plusieurs techniques yoo xamante ne tey gi ça vous permet tout un chacun muy yow di man nga mën a épargner xaalis bu bëree bëree bëri boo xamante ne tey gi dina la permettre nga mën a financer bu fekkee am nga benn projet bien défini nga mën ko financer même bu fekkee mënoo ko financer à 100 pour cent euh, mais que di a financer à hauteur de 50 60 voire même donc euh, ay technique la yoo xamante ne je pense que jeune bu ci nekk war nga ko mën a adopter war nga ko mën a commencer implémenter parce que ni ma koy waxee rek dañoo toll ci jamono joo xamante ne pratiquement c'est l'argent qui gouverne le monde donc société bi ñu nekk même ci société sénégalaise euh, boo amul xaalis en fait sa représentativité dafay xaw a faible même au sein de la famille jarul sax ngay génn ci sa quartier pour def euh, constat bi même au sein de ta famille koom-koom euh, bi nga war a euh, comme koom bi boo ko amul trop trop trop trop trop si tu n'as pas trop d'argent tu vois que considération bi dafay xaw a des donc raison pour laquelle man je dis aux gars ne serait-ce que tey gi pour jaamu ci yàlla bosser énormément parce que liggéey jaamu yàlla la mais il faut travailler de manière intelligente et travail de manière intelligente boobu noonu daf la war a mën a permettre nga gañ am li ñuy woowee autonomie financière te autonomie financière ni nga ko mën a amee bëri na à travers bien sûr les projets dans à travers les projets à travers l'entrepreneuriat te pour nga mën a entreprendre dara il faut que nga am épargne wala nga am les fonds nécessaires donc am na ay investissement bien am na ay euh, business yoo xamante ne effectivement laajul xaalis ay compétences c'est la laaj mais pour la plupart des business tey gi dafay laaj nga am benn budget de départ donc sans trop dama leen di indil quelques techniques yoo xamante ne tey gi ça vous permet d'épargner énormément d'argent sans pour autant sax nga sentir que ne tu es en train d'épargner tu es en train tey gi de constituer une caisse boo xamante ne si six mois voire même un an dina la mën a jural tey gi euh, lu conséquent loo xamante ne di nga ci mën a gis sa bopp alors donc premier technique d'épargne bi nga xamante ne man moom laa lay wax nga jëm ko def sa bopp mooy il faut que d'abord nga comprendre xaalis nan lay doxee donc premier épargne du jël xaalis teg ko de côté mais premier épargne bi nga war a njëkk a njëkk njëkk njëkk a def sa bopp bi mooy xaalis nan lay doxee te benn ci principe bi xaalis di doxee mooy li ëpp solo mooy nekkul li ngay gagné par weer mais li ngay garder par mooy li ëpp solo donc je répète nit bu fekkee que ne da ngay war a constituer épargne à travers sa revenu li nga war a njëkk a def sa xel mooy l' importance li nga xamante ne moom lay gagné par weer mais l' importance mooy li may garder je m'explique c' est à dire que tey jii tu des personnes yoo xamante ne ils un million de francs le mois mais dañoo am ay dépenses de sept cent cinquante mille voire huit cent mille ce qui fait que chaque mois ils épargnent en moyenne deux cent mille et en retour tu vois une autre personne boo xamante ne il gagne quatre cent mille mais jéem na arrangé wu de telle sorte que le mois. il ne dépense que tey gi benn cinquante mille francs wala bon disons benn cent mille francs ce qui fait que après dina mën a épargner aux alentours de deux cent trois de deux cent cinquante trois cent voire même trois cent cinquante mille le mois. alors avec ces deux personnes la boo leen di xool kan moo gën a euh, kan la épargne di gën a di di di ëpp doole te pourtant la première personne moo ëpp li muy jot par weer mais boo xoolee la deuxième personne moo ëpp li mu koy épargner fan la différence bi di jouer. c'est la quantité d'argent qu'il garde donc li nga war a njëkk def sa xel mooy li may gagné amul solo li may gagné c'est quelque chose dont du ma ne loo xamante ne du ma ne sax amul solo la mais en fait nekkul luy peser trop ci balance bi mais li ëpp solo mooy li may garder par weer donc yow mi jeune yow mi may seetaan ci vidéo bi jàppal ne li ëpp solo li ëpp solo set bi nga war a njëkk a adopté mooy l'importance ce n'est pas ce que je gagne par mois l'important c'est ce que je garde par moi donc loolu mooy mbir bi njëkk bi nga war a def sa xel l'important ce n'est pas ce que je gagne importance bi nekkul li may am par weer mais li ëpp solo mooy quantité xaalis bi nga xamante ne mën naa koo denc par weer donc gars yi loolu bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax parce que je pense que mooy pilier wu épargne donc ñaareelu pilier bi mooy lan nga defar nga def li ñuy woowee un budget bien sûr chaque weer defaral sa budget par exemple le mois si tu reçois deux cent mille francs damay joxe exemple nga jot am deux cent mille francs de salaire adopté li ñuy woowee planning du cinquante trente vingt cinquante trente vingt bon am na ñoo xam ne nee nañ cinquante euh, quarante dix bon kenn ku ci nekkee yaay xool aussi ni nga ko mën a adapté mais damay yem ci Canva bi rek mooy cinquante trente vingt chaque fin du mois boo jotee sa revenu boo jotee sa xaalis supposons mu nekk deux cent mille francs da ngay jël cinquante pour cent yi mu nekk lépp loo xamante ne tey gi ce sont des besoins nécessaires comme nga fay sa location fay sa courant jënd sa euh, jënd sa ration alimentaire donc lépp loo xamante ne ay nécessité la danga koy affilier au cinquante pour cent yi nga xamante ne ci sa revenu la donc ça mën na nekk loo xamante ne ça te permettra de s'ouvrir à tous tes besoins yoo xamante ne bien sure ay besoins primaires la les trente pour cent restants nan nga koy def da nga koy utiliser pour lépp loo xamante ne wàllum loisir la bien sûr parce que tamit doomu aadama mënoo ne da ngay liggéey sans pour autant te faire plaisir bien sûr quand on travaille aussi c'est pour que à la fin de chaque mois que au moins nga mën a nga mën a bégal sa bopp tuuti donc mën nga jël benn budget de 30 pour cent pour tout ce qui concerne les lois su ma loisir du ay dem boîte dem resto non non je ne parle pas de ça mais peut-être habillement tu peux te tu peux te payer des chaussures mën nga jënd ay yére bien sûr mën aussi dem à les sortir avec des amis tu vas inviter ta copine yooyu noonu yëpp ci ay loisir la mais war dépense warta dépasser 30 pour cent en fait il faut être très discipliné et catégorique bëgg naa distraire mais damay ériger benn budget boo xamante ne du ko romb donc au delà de 30 pour cent j'évite la distraction ba mois bii nii di ñëwaat parce que j'ai déjà épuisé les 30 pour cent mu des ñaata mu des benn 20 pour cent 20 pour cent yi qu'il pleuve ou qu'il neige jëlal vingt pour cent yi nga épargne ko ak affaire bi lu mu xat-xat ak loo nekk-nekk ci ay contraintes ak weer bi lu mu difficile difficile bu sa xaalis ñëwee la première des choses à faire jëlal vingt pour cent nga dem nga épargne ci donc loolu muy deuxième technique bi nga xamante ne ça te permet gi nga constituer benn épargne bu conséquent au fil du temps la première des choses wax naa ko mooy nga def sa xel que ne li ëpp solo mooy Euh, du li ngay am par mais li ngay garder par weer la deuxième facteur bi nga xamante ne danga ko war a bàyyi xel mooy lépp loo gis da ngay def un budget budget de trente euh, de cinquante trente vingt cinquante pour cent pour tes besoins primaires location ndox courant say facture ak yooyu noonu yëpp ci nga koy fay les trente pour cent mën nga ko utiliser pour say loisir mais les vingt pour cent kooku dafa war a nekk épargne boo xamante ne donc war sax en fait imposer sa bopp par la force la war a doon les vingt pour cent de mes de mes revenus par force ci épargne ba la jëm je ne je n'y touche pas ko utiliser pour beneen fin même si je suis à sec je suis de me débrouiller mais les vingt pour cent là je n'y touche pas voilà donc beneen facteur bi ëpp solo tamit que nit ñi war ko xam mooy bu xaalis di yokk des fois dañ naan la bu xaalis di yokk soxla yi di yokk noonu non en fait bu xaalis di yokk charge di yokk de mais en fait désir ñooy yokk donc loolu aussi piège la bu ama am solo boo xamante ne jeunes yu bëri ñu ngi ciy sombre da nga gis koo xamante ne bi mu daan am cent cinquante mille macha allah il vivait paisiblement il parvenait à mu gérer euh, revenu def ci li mu ci war a def yëpp sans pour autant être à sec vers la fin du mois mais day dem am cinq cent mille mu gis ne carrément léegi il commence à être à sec au bout de au bout euh, ci fin du mois yi donc qu'est-ce qui a changé entre temps en fait ce ne sont pas les charges ñoo changé mais c'est parce que fait da nga inclure yeneen loisirs yu c'est parce que en fait da nga inclure yeneen envie yu bees tu vois donc envie yooyu ce sont ces envies là qui te coûtent beaucoup d'argent ce qui fait qu'en fait euh, nu mu tudd waaye li nga doon épargner bi nga daan am cent cinquante mille tu peux plus l'épargner bi ngay am euh, plus de cinq cent mille et pourtant ça devrait faut qu'on soit discipliné mentalement en fait il faut qu'on pour euh, bien sûr mën a gérer suñu xaalis ci euh, jumtuwaay yi gën a yi gën a sell donc euh, beneen facteur bi nga xamante ne aussi dama koy souligner bien sûr que pilier la pour nga mën a constituer benn épargne ba pare prétendre à une richesse future mooy il faut rembourser ses dettes oui les gars mënuma mënuma tey gi di def constituer épargne alors que j'ai des yoo xamante ne dama ko war a rembourser à chaque fois dette passive la dette la tant que ay bor yoo xamante ne tey dafa nekk solos Euh, indépendance financière bi nga bëgg en tant que tel mënuloo ko am degré d'investissement bi nga xamante ne bëgg nga ko en tant que tel mënuloo ko am capacité de financement bi nga xamante ne tey gi yaa ngi koy xëccu ci sa projet yi nga bëgg a taxawal mënuloo ko am parce que tu as des donc la première des choses à faire euh, bokk na ci pilier yi gën a fondamental en technique de cumul d'argent mooy soo amee ay bor il faut nga solde say bor surtout sénégalais nag mën na leb trop mais pour mu fay bor c'est à fait problème donc yow mi may seetaan ñun ñëpp li ñu war a njëkk def pour maanaam ñu mën a constituer benn alal joo xamante ne dañu permettre ñu finance suñu projet futur mooy nañuy fay suñuy bor ba pare les gars payez vos dettes boutiquier bi nekk ci koñ bi nga yoral ko cinq euh, cinq mille francs à la fin du mois tu as l'argent va payer des dettes parce que passif la tout le temps xaalis la boo xamante ne dafa war a génn alors n'hésite pas si tu as les de payer tes dettes paye tes dettes même tes dettes même doivent même primer sur l'épargne parce que mënoo épargner 20 pour cent ba pare alors que am ay dettes yoo xamante ne représente de ton patrimoine alors commencez d'abord les par payer vos donc sans trop tirer en longueur quelques techniques laa leen andiloon comme ni ñu ko waxee série de vidéos la yoo xamante ne en plusieurs techniques d'épargne yoo xamante kenn ku ci nekk bon je ne dirais pas jël parce que bon man mii di wax ak yéen sax mënu ma jël lépp effectivement mais kenn ku ci nekk du ñàkk mu am ci deux trois quatre techniques yoo xamante ne dina la mën a intéresser comme ça nga jël ko essayer appliquer ko ne serait-ce bout de six mois et je vous assure que di ngeen ma bind en commentaire que effectivement grâce ak technique yi nga xamante ne joxe nga ko au sein de les entrepreneurs inspirants ça m'a permis tey ma def benn épargne de un million sur six mois m'a permis tey ma def benn épargne de deux millions au bout de un mois euh, de euh, alors donc sans trop tirer en longueur fii la ñuy yemale vidéo bi euh, di leen jox dig daje beneen yoon ci seen chaîne les entrepreneurs inspirants